Euh, d'intégration communautaire dañ ne dans l'espace CEDEAO libre circulation des personnes Euh, et des, et des, et des, et des Vraiment une très libre circulation des personnes et des Donc en rapport avec les normes communautaires, euh, nan ngay nan ngay gérer ton ton ton ton ton ton, ton repli nationaliste. sama programme xam nga sànq lire nga CEDEAO ou hors CEDEAO j'ai tout prévu déjà dama la benn affaire CEDEAO amul benn utilité pour Sénégal je dis bien le Sénégal waxuma yeneen dëkk yi dama koy xayma ci comme nu Angleterre def rek ci euro bi waroon nañ mën a am libre circulation c'est vrai am nañ ko déjà mais li mujjee am mooy libre installation des étrangers au Sénégal moo fi am benn on pouvait se limiter à juste une libre circulation commerciale parce que am nañ port dëkk yu ñu wër yu bëri seen kii si ñun la dépendre loolu mënoon na doy seen lan ci ñun la dépendre. seen marchandise seen yu bëri que ça soit Gambie que ça soit Mali et tout yu bëri si Dakar lay génnee loolu defe naa xam nga ko maintenant man gëmuma maanaam cette politique de se mélanger lu yàlla wax ci alxuraan laa gëm je vous ai fait des nations pour que vous vous entreconnaissiez pas pour que vous voilà pas ngeen ubbi frontières yi. dañuy naan tubaab tubaab bi ñoo séparé dëkk yi tubaab bi séparé dëkk bi yàlla moo leen sant ñu séparé dëkk bi dëkk bu nekk da nga am réalité la preuve amee la moo tax Sénégal amul Ebola. parce que dañu am frontière ak dëkk bi am Ebola dëkk day respecter maanaam ay frontière dëkk day protéger ay frontière am mais doo ñëw ubbi say frontière ñëpp ni fi faax dugg de sorte que maanaam yow doo dem sax ba xàmmee sax maanaam say doomu dëkk ba doo sax mën a prioriser say doomu dëkk instant bi ñu ngi ci ay ressources naturelles demain war nañ toll foo xam ne Sénégal le Sénégalais doit même jouir ne serait-ce que d'une somme symbolique ci gaz wala man gëwuma CEDEAO. te incha allah si je da ngay génn CEDEAO. du ma génn cette décision décision yi noonu du ma xam nga xam nga ñun ñu dugg CEDEAO kenn laaju sénégalais yi da ngeen dugg CEDEAO ay kilifa ñoo toog sous <laughs> l'inspiration de la France ñu gëmloo leen ne que oui faites comme nu def leen benn genre confédération de pays et tout et ça c'est mal fait pourquoi parce que laaju ñu avis benn dëkk ça s'est pas passé par voie référendaire. maintenant si je deviens président je demanderai aux Sénégalais incha allah par voie référendaire est-ce qu'ils sont d'accord de toujours être dans la CEDEAO ou pas benn même suñu si d'accord tamit on aura il aura des cartes de séjour yoo xam ne mooy li ma la sam programme biir CEDEAO carte de séjour day am ak hors Sénégal euh, ak hors CEDEAO cela dépendra maintenant ça va différencier aussi des prix alors dafa am Union européenne mu nekk un exemple d'intégration économique réussi même bu fekkee ne. qui est passé par voie référendaire. mais même bu fekkee ne y eu le Brexit avec la sortie de de de de de de de la Grande-Bretagne. Mmh. aussi au Sénégal ici en Afrique ñu jéem euh, des moyens euh, d'intégration ñu ne nañu commencer palier par palier ñu teg ay structures communautaire organiser ces structures communautaires de sorte que euh, par exemple aujourd'hui marché CEDEAO dañ la naan la CEDEAO mais aujourd'hui c'est presque quatre cent millions de de de de de de consommateurs une manière par exemple pour une entreprise sénégalaise tey par exemple wala bu une entreprise ivoirienne buy def euh, buy buy def cacao euh, aujourd'hui mën na bàkku ne mën na am un marché de quatre cent millions de de de citoyens yoo xam ne mën nañu écouler suñuy produits à l'intérieur loolu sax taxoon ba ñu bëggee engager les pays africains dans les accords de partenariat économique ñu bari euh, intellectuels yu bari ñu mel ni ñoom Cheikh Tidiane Dièye dañoo jàpp ne euh, ñun ci suñu espace communautaire yi mën nañu am genre euh, genre coopération genre partenariat boo xam ne on n'aura même pas besoin d'aller d'aller ailleurs alors CEDEAO boobu CEDEAO boobu ak règle yi mu fixé ak norme économique yi mu yi mu yi ni mu organiser euh, suñu suñu suñu économie yi ak règle politique yi ñu fixé ñu nekk aujourd'hui un ensemble bu intervention amee ils ont voulu intervenir euh, au, au, au Niger euh, intervenir en, en en Guinée ils ont ils sont en, en donc loolu noonu yëpp nan ngay ñëwee rek nan nga ci nan nga ciy retrouver ci intérêt France intervention yi hmm? intervention yi ngay wax ci intérêt France la mës nga jël oto nga dugg Gambie ak sa oto Sénégal nga jël oto nga dugg Guinée ak sa oto mës nga ko def mës nga ko def soo ko defee di nga xam ne CEDEAO existé wul CEDEAO du dara je le dis ah avec assumation gëmuma CEDEAO assumation du dara CEDEAO du dara CEDEAO leen kese la maanaam ay président yu booloo la sous l'inspiration française di doxal intérêt français intervention yi nga lim nii bañ dal def intervention ba léegi maanaam c'est est-ce que c'est l'intérêt africain ces interventions là. l'intervention en Gambie n'a pas été salutaire. n'a pas du juger. parce que les forces de l'économie qui ont libéré le Libéria. ma Gambien du ma ko juger n'ont pas aidé à remettre sur les rails de la démocratie. un pays plongé dans la guerre depuis des décennies. waaw loolu peut-être mën na nekk exception mais léegi sur le cas du Niger exemple dañu doon prévoir dem intervention le peuple est avec les les putschistes loolu est-ce que c'est c'est c'est salutaire mais le peuple il est le peuple. il est souverain sama question. le peuple. il est souverain léegi nag peuple boobu nag souverain nag moo tax nag maanaam ay CEDEAO nii amuñu xam nga nit il faut nga xam maanaam lan moo waral dara par exemple union lan moo waral union ko waral. pour contrer la force <laughs> mooy waa Russie xam nga Russie c'est un ensemble léegi nag maanaam pour contrer seen force boobu nag si biir Europe moo waral maanaam yeneen pays coalisé créé l'Union européenne te ba léegi nii instant yi moom moo leen dab si fu mu nekk nii moo waral manaam guerre bi am instant bi nii loolu jigul amul Afrique Afrique certes on a beaucoup de pays mais ku nekk respecté nga sa frontière libre circulation des du commerce et des gens et yi ñu wax ni ci CEDEAO wax ma ban njëriñ lam lu dul ñun ñoo ci gën a perte ñun Sénégal ñoo ci gën a perte. nañu perte. comment on est envahi li ngay bañ a dégg on est super envahi neexul wax mais c'est <laughs> il faut ñu toog xool maanaam kan mooy sénégalais ci biir Sénégal ak lan mooy droit ak njëriñu Sénégal ci biir Sénégal mais dangay ngay toog ubbi say frontières woote teraanga et tout boo xam ne yow mi koy woote doo ko fekkee. mais kiy jóge bitim réew moom ñëw sa dëkk fees fa di fa dëkk di fa jur di fa jaay te du fay dara amu fa benn njëriñ moo tax ñu ñu nekk dañuy créer benn plan d'épargne national dàq ñu benn étranger mais étranger bu fi ñëw di nga fi am njëriñ dëkk su la mayee hôpital ngay faju may la tali yi ngay jaar may la police bu lay sécuriser may la say doom di jàng si école da war a cotiser si dëkk bi képp ku nekk ci dëkk bu sérieux yaa ngi koy def ñu nekk France ñu ngi koy def ñu def ñu nekk Gabon ñu koy def ñu nekk Cameroun ñu koy def Centrafrique ñu ngi koy def dëkk yi nga xam sax ñun ñoo leen sax gën a tane ñu ngi def carte de séjour pour que maanaam étranger yi am njëriñ léegi fii lan ma fi am dangay ngay dem ay hôpital étranger ñoo fay nekk maanaam jur fa jur yu bëri ñoom kese ñooy wasin neexul wax mais mooy dëgg du saaga mais constat la maintenant nag bu dee loolu ay politique et que ça dérange aw ma intention déranger kenn mais dama am intention changer doxalin dëkk bi mais teg sénégalais bi ci biir ci kanamu Sénégal jiitu am fi njëriñ mën fi tekki loolu kese mooy sama politique du leneen nekkuma fi pour ŋàññ j'ai assez voyagé pour ne pas être raciste j'ai assez voyagé pour ne pas être xénophobe sama téléphone bi nii je ne parle qu'à des étrangers ba Sénégal gagné Coupe d'Afrique xeet boo xalaat bind na ma message pour féliciter ma mais ñoom seen dëkk looloo fa man je veux juste que ñu teg sénégalais mu am doole am